وكل ضلالة في النار أجعلني الله وإياكم من النار asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu doomu day ginnaaw bañ borom bi subhaanahu wa taala di seede ni moom rek mooy buur boo xamee ni moom lañu jaamu jaamu gi di jëriñ ñàkk jaamu gi di lor di muslu ci saytaan di julli ci gin ci bindeef di xam ne tamit moom borom bi subhaanahu wa taala ku mu jubal ku nekk ya ngay jub waaye ku mu seetaan ci maandu tem ba nga dëng si euh, dëng rek ngay nekk yàlla nañ ci yàlla musal ñu xam ne nag lu gën ci njub bi mooy njubu yonante bi subhanahu wa taala waaye lu gën ci wax yi mooy téere borom bi subhanahu wa gën ci njub bi tamit njub ñi nga xamee ne moom la yonante bi sallallahu alayhi wa sallam dénkaan yi suñu waxtaan bi mu ngi jëm ci wàllu mu ñu tuddee thème bi alwiqayatu min alxiiba nan la ñuy protéger suñu bopp ci jëw jëw muy feebar boo xamee ni néew na ku ci mucc surtout ci suñu jamono yi nga xam ne léegi aduna bu ubbeeku la maanaam aduna boo xam ne benn néeg la bu njëkk ba dañ doon wax internet dafa def àdduna bi ci benn village waaye léegi moom mun nañ la da koo def ci benn néeg nit ki nag su bëree li muy seetaan foog mu bari li muy commenté su bëree li muy commenté day bëri ci lu muy tarxiis mu yëg ko wala mu ñàkk ko yëg lii yenn ay mbir la yoo xam ne dama koy dénk sama bopp balaa ma kaa dénk keneen yoo xam ne ni amaana bu ko nit ki defee mu muccal ko ci jóg bi ci njëkk mooy di bëri looy noppi maanaam wàññi sa wax fexeel ba bëri looy noppi mooy point bu njëkk bi fu ñu ko jëlee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee man sama tanaja ki nga xamee ni dafa bëri lu muy tekk tekkaaral de am na sens pour ñàkk dugg ci mbir yu bari nga xadis moom dafa yaatu nekkuñu ci point boobu waaye li gàttal mooy liñ ci intéressé rek mooy ki nga xam xamee ni dafa bëri lu muy noppi texe na yàlla nañ yàlla boole ci texe yi texe na ci fen texe na ci jëw texe na ci ay mbuus kon point bu njëkk bi moom loolu maanaam kon noppi ci loo xamee ni ci ay wax la yoo xam ne ko mbuus la beneen point bi mooy fexeel ba sa temps nga def ko ci lu lay jëriñ maanaam bul toog rek amoo temps xalaat baaxul toog amoo programme dangay ngay wax rek jóge fii wax fii dem fii wax fee parce que amoo programme waaye nag soo jëloon sa programme boobu nga tënk ci sa bopp ci li lay jëriñ muy alquran téere yàlla bi ak zikar nga xamee ni yomb na lool ci làmmiñ te ay yoonam bëri lool ba foo ko natt weesu na ko imagine toi borom bi subha bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ci benn xadis ne subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa allah wallahu akbar ñeenti kàddu yi yaa ngi koy wax presque ci treize secondes moo gën àdduna ak li ci biiram nga dellu mu ne la subhanallah téeméeri yoon jéggal nañ la say bàkkaar faral nañ la say téeméeri bàkkaar indi lañ luy tolloog ay téeméeri tiyaaba nga ne la xawla wala quwata illa billah saxalañ la garab ca aljanna yàlla nañ yàlla boole ci ñoom laa ilaha illa allah waxdahu la sharika lahu mooy afdalu zikr kon nit ki làmmiñam gi bu ci mënul tudd yàlla mënul cee jàng alquran mënul cee wax lu baax na noppi kon deuxième point bi nga xamee ne mën na la jëriñ comme mën na ma jëriñ man ñu di wax mooy di bëri di tudd borom bi subhanahu wa maanaam saa yoo amee temps rek jëlal sa làmmiñ bi nga xalaat balaa ngaa wax ndax umpule wuñu ne am na ñaari malaak yu nekk suñu suñuy loos loo mënta wax dañ koy bind na la sa sëqat bi sax dañ koy bind sa toxo bi nga naan oxo dañ koy bind kon ñooñu duñu bàyyi dara kon saa na demee bay wax rek xalaatal ci loolu kooku mooy troisième point bi lii feddali loolu yonent borom bi subhanahu wa taala ne moom maa yalfidu min qawlin illa ladayhi raqibun atid ibnu kasir ba muy sarax aaya bi dafa ne akaltu sharibtu zahabtu raaytu sax lekk naa dem naa ñëw naa yii mbir sax jàppal ni malaaka yi dañ koy bal yenn yi nee nañ soo sëqatee sax dañuy bind sëqat moo tax euh, Muaz ibn Jabal radiallahu taala sax saxaabi bu màgg boobu laajoon na yonente bi sallallahu alayhi wa ya rasulallah a kullu ma natakallamu bihi yuktabu alayna ndax lépp loo xam ne dañ koy malaaka yi dañ koy dind yow yonent yàlla bu tedd bi suñu yonent sallallahu alayhi wa sallam ne ko sakkulak kooku benn proverbe arabe la comme ñun ni ñuy faral di waxee yàlla na nga dee rek fekk jubluwoo ci nit ki yàlla na dee wax ci wax yoo xam ne da lay wax di waxtaan ak yoo ay waxtaan yu jéeme ba ngay ree rek nga ne waaye bi yàlla na nga dee rek maanaam façon de wax la waaye jubluwuñ ci maanaam kon sakkulak ko arabe dañ ko doon faral di wax. maam sa ndey wàcc na la waaye jubluwuñ ci ŋañ moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko sakilatka ummuk wa hal yakubbu nnaas ala manaxirihim fi nnaar illa xasaid alsinatihim allahu akbar xanaa xamoon li ëpp ci loo xamee ni ñu ngi dem safara yéen fay dugal seen làmmiñ la yàlla nañ ci yàlla musal imam ahmad rahimahullahu taala ñëw na jamono yi nga xamee ni dafa tawat mu jékki-jékki di on di di onk comme rek nit ki bu tawatee mu ngi nekk ci jamonoy sukuraat day metti muy onk ñu ne ah imam onk gi de jàppal ni wax la déggaatuñu mu onk ba mu sedd rahimahullahu taala wa arda ñu dellu tamit ñëw ci xadis bi nga xamee ni taawus net euh, xadisul Bilaal ñu ñëw ci xadis yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mu ngi fi xamal ne inna rajula yatakallam bi kalimatin laa yulqiilahaa baalan fa tahwii bihaa fii naari jahannam sabiina xariifa aw kamaa qaala sallallahu alayhi wa sallam xadis Bilaal al-Muzani euh, yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne nit ki dina wax wax du ci bàyyi xel waaye fekk musiba ci wax jooju mun na doon sabab mu dugg safara goonu sori goo xamee ni mun na fa am ay at yu bare bare bare bare bare euh, al imam ibnu ba euh, imam Abdullah ibnu Mubarak rahimahullahu taala di doon dénkaane mu ne ay yoo demee bay wax xalaatal ngay wax surtout nag soo demee bay waaji jiw ne ah li may waaj a wax nii de su ma ne woon astaghfirullah subhanallah remplacé na mu lu bëri dinaa ci am yu bëree bëree bëree bëri alxasanu albasri rahimahullahu taala nee na bokk na ci jéppi borom bi subhanahu wa taala yenn ci mbir yoo xamee ne dañuy jàpp ni ki koy def borom bi jéppi na ko mooy yàlla nattoo ko ci koo xam ne fu mu nekk day wax rek te li wax li dara intéresse wu ko ci maanaam day wax ci loo xam ne yoonam a ngi ci yoonam nekku ci moom nee nag koo ne ni nii de la nii la meloo wala melokaan bu mel nii la yor de jàpp ni nga jàpp ni kii ku ñu jéppi Euh, lii yenn na woon ci ay mbir yoo xam ne dañ ko doon dénk suñu bopp di ci dénk amaana buñ ko appliqué mun nañoo dimbali ci bàyyi jëw walla wàññi ko donte ni bàyyi ko nag lu mën a nekk la lii ay fàttali yu ndaw la rek waaye bunt bi bunt bu yaatu la bind nañ ci tamit gëstu nañ ci waaye daf fekk ni waxtu bi ñu cëral jeex na amaana incha allah ñu doole ñu amaana dinañ ko yeggali ci yeneen émission yi ndax ki nekk ci kii bi moom mooy signalé lépp luñ fi wax mu jub ci borom bi subhanahu wa taala la lépp loo xam ne wax nañ ko fi mu dëng ci kii wax la doomu aadama moom matul wa axiru daawaana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam ala nabiyina muhammad